asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi noo ngi santaat sunu borom subhaanahu wa taala di julliwaat ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di feddaliwaat sunu yaakaar Cheikhuna Ahmadul Xadim di gën a ñaanalaat Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom gën ko fee yàggal lool te gën a dolli ak wéram. sàmmal na ko ba mbooleem naali lislaam yii mu naal ci toolub sëriñ tubaa xaadim rasul suñ borom bàyyi ko fi ba mu àggale ko yëpp te ñu ànd koog moom te am ci ngërëmul sëriñ bi mbokk yi xam ngeen ne kuréel bii di junnatun liman nasamahu wuutu sëriñ muntaxaa ci ndox mii nga xam ne dugg na ci biir këram te bu ma nee biir këram mooy këri murit yi mu dugg ci Touba kër gum ci mën a doon rek këri sëriñ Touba la ndax Cheikh Abdoul Khadir daane wax ne kër gu mag la ñuy wax ci njaareem waaye kër yëpp sëñ ko moom kon kër yi buntu kër yëpp buntu kër yi Serigne Touba loolu nag mu lëkkale woon ñetti banqaas ba noppi ñeenteel leen muy banqaas bi nga xam ne moom lañ dëkk dénk dëkk bi te mooy commune bi te Cheikh Abdou Lahad Ka nekk nii di nekk ca bopp ba waaye boole ci banqaas bi nga xam ne murit yëpp ko bokk muy Touba ca kanam te Serigne Abibu nekk ca bopp ba Serigne Abdou Lahad moom Serigne bu nekk fii toogal ko fi waaye banqaasu Hizbut Tarqiyyah di soldaari Serigne Touba yi nga xam ne général bi ne ci seen kanam mooy sëriñ Youssou Diop moom it nekk fi nekkal leen fi waaye ñoom nag biñ gisee ne ñi ngi ci biir waar wi nag te ab soldaar moom bu xare tàkkee day joxe bakkanam soog dem ni sahaaba yi defoon ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jaayanteeg seen i bakkan teg ci seen alal soog a jóg wuti wuti xare ba ñoom noonu lañ def moo tax nag biñ ñëwee ñu ne jëm yaa ngi nii mooy deret ji di bakkan yi waaye alal ji du des ginnaaw ñu ne nag kon nañ dem fagguñu nag loo xam ne danañ ko ñëw walloo si ko Seex Mahamadul Muntaxa fekk ko ci liggéey bi ñu dajale nag seeni i addiye fas ko yéene andi loolu moo tax bi ñu dikkee Serigne Youssou wax ne moom ci biir junnatu la bokk kon nag moom amu fi kaddu ñi am kàddu mooy ñi nga xam ne ñooy waa daara ji te ñooy sëñ Modou Thiam mii moo nekk kuréel moo nekk Dakar waaye nag fas yéene wax ci turu mbooleem is bu tarxiya bu nekk ci biir réew mi suñu noppee Serigne Ilimane Sarr nekk Amérique dana yëkkati kàddoom ci mbooleem eh, isbu tarxiya bu nekk ci diaspora bi ak foo mën a nekk ginnaaw bu ñu dajalee seen addiya indi ko joxewaat seen i bakkan joxe seen i alal fas yéene ànd ak sëriñ bi te amuñu genn tànn kon ñu bàyyi kàddu gi ak sëriñ Modou Thiam bu ñu noppee sëriñ Lahat moom sëriñ Abibou dana leen tontu kon sëñ Modou bisimilah. bisimilah bàkke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh ñu ngi ziar suñu kilifa yi ñu fi fekk yëpp eh, ñëw tey jii ci turu Hizbut Tarqiyyah ndax jotaay bi moom. yaakaar naa ne bu ñu dajee rek ci kuréelu tarxiya jëwriñ ji mi nga xam ne moo fi nekk muy sëriñ Youssou Diop muy responsable moral bi isbu tarxiya moo war a wax waaye nag kàddu gi bi yoon bi ñu ñëwee dañoo tey moom maa ngi ci kuréel gi nga xamante ni Cheikh Mouhamadoul Mountakha moo ko samp fas yéene mu taxawu liggéey bi nga xamee ni ginnaaw bu xew-xew bi amee mu jël euh, Euh, Touba ca kanam euh, jël communauté rurale bi boole ko ak isbu tarxiya mooy ñetti bànqaas Cheikh Mamadou Mountakha teg ci ne maa ni di ñeenteel ngir ñu taxawu liggéey bi loolu itam boobaak léegi bés bu yàlla sàkk ñoom ñu ngi fi di saytu liggéey bi di ko saytu saytu boo xam ne nii ñu ngi ci sant sëñ Tuubaa bu wér liggéey bi nag loolu nga xamante ne bii noonu la nosoo nga xamante ne bii isbu moom nit ñu seqee liggéey bi kenn ku ci nekk ak gox ba nga ne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 noppaluwuñu guddi noppaluwuñu bëccëg fii ku leen gis gis nii ñu taxawee ak ni ñu takkoo di wër Touba fuñ xam ji fa taxaw képp koo xamante ne bii am nga loola gaar ci lii ñu taxaw temm ci dimbale la ànd ak yow taxawu la ci fànn yëpp loolu moom ñëpp teg seen bët nga xamante ne bii amul yendal amul fanaanal kon ñu ngi ciy sant fas yéene ñëw rek euh, barkeelu ci lii tàmbalee ko liggéey bi waaye xam ne ñu ngi dem ñu ngi ñëwaat incha allah. bismillahi rahmaani borom Touba. ñoo ngi jël suñu nuyoo ñun waa Hizbut Tarqiyyah ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw biir réew mi bitim réew bi di ko jébbal euh, comité bi nga xam ne moom la sëñ bi tudde junnatun liman nazamahu te sëñ Abibu jiite ko ak sëñ Abdou Lahad Ka di commune jiite communauté rurale bi ak sëñ Youssou Diop ki nga xam ne mooy jiite euh, daara Hizbut Tarqiyyah ni ko sama mbokk mi waxee sëñ Mamadou Thiam waxee noonu rek la deme Euh, sëñ bi moom bi mu joxee ndigal moom sëñ Mountakha yal na ko yàlla gën a dëgëral gën a guddal aw fanam gën a wéral ay cëram ak mbooleem rek ay taalibe ba ci jullit yëpp ndigal loolu da ko njëkk a jëf euh, euh, jëfe wooti nag taalibe yëpp murit yëpp ba ci jullit bépp boo xam ne bëgg ngaa jariñ ndigal itam nii nga xam ne ni la ko sama mbokk mi wax sëñ Mountakha bi bi ko suñu responsable moral joxe bépp membre bu góor bu jigéen bu nekk bitim réew dañoo taxaw di jokkoo di soññe ba addiya ji nga xam ne ni ko biir réew mi defee ba addiya ji nga xam ne sëñ Mucaam tudd na ko léegi euh, kenn ku ne lam ca war a joxe am ñoo xam ne dañoo joxal seen bopp joxal seen i soxna joxal seen i doom ngir fonk rek ak dëgëral baatub sëñ Muntaxaa bi nga xam ne wax na ko loolu nag biñ ko defee a ah, ci lañ dajal loo xam ne tol na lim boobu di téeméeri ton ceeb te qualité nag la te itam nag fukki millions yoo xam ne ak tàmbali dong lay doon kon eh, feek sëñ bi waxut ne wëlbatiwaatul laaj ji jubale ko feneen dañ ko fas yéene ànd ak comité bii nga xam ne mooy junnatun li man na sama ko nu waa Hizbut Tarqiyyah di ci jëf di ci woote di te duñ ci taxaw te duñ ci duñ ci duñ duñ ci eh, dàcc dañ ci sant sëñ Tuubaa ndax buntu la boo xam ne nii kat buñ tëb jariñu la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane man farraja kurbatan ah, min an muslimin farajallaahu lahu kurbatan min kurbaati yowmal xiyaama te lu mel nii rek tax ndax yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam dafa wax ne képp koo xam ne da ngaa dindi njàqare njàqareel benn jullit yowmal xiyaam suñ borom dana la fa teggil ay njàqare yaakaar naa nag tiis yi nga xam ne daal na ci e, waa dëkk bi ci ñenn ci dëkk bi loolu aw tiis la kon sëñ Muntaxa mënuñu ko fay ndax dañu ubbil buntub liggéey te képp koo xam ne bokk nga si kuréel bii te kuréel bi daanaka mooy murid yëpp rek ndax bu ne Touba ci kanam ne communauté rurale bi ne Hizbut Tarqiyyah ah kon xam ne ñëpp a ngi ci biir kon luñ ci jëf nañ ko xeeb te nañ xam ne eh, luñ ci jëfit doyut te wax dëgg yàlla ñun lii dañ ko jàppe rek ndoxum tool dañ ko jàppe rek ak xamante ne bii ñoo ngi dem ñoo ngi ñëwaat niñ ko waxee rek feeg sëñ bi daal waxul wal batuur laab jëmale ko feneen sëñ Yusuf sëñ eh, Abibu sëñ euh, Abdoul Ahad Ka xam leen ne duñ duñ ñu seen ginaaw duñ teñ ginnaaw mukk tey it nit ñi leen nekkal bitim réew yi nga xam ne dañoo war a ñëw futtiku te kenn ku ne am liggéey boo war a doxal ñoom ñu nekkal ñu ci terrain bi nekkal ñu ci bureau yi nit ñu nekkal leen ci beneen terrain bi di war a saytu hadiya ji ñun tam duñ ci dellu ginaaw te luñ ci jëf xepp ko te fas yéene leen fu ngeen geesoor gis ñu bu loolu jàllee ne suñu kàddooy bopp ñun waa Hizbut Tarqiyyah mooy suñu responsable moral sëñ Youssou joot mi nga xam ne sëñ Mountakha Mbacké moo na ko tànnal ñoo ngi leen xamal ne dañoo fas yéene koo gekka bu ñu mar lu mu joxe lu mu song ñu ànd kook moom teyit lépp lu mu santaane ci liggéey bii muy but bii nga xam ne mi ngi ci mi communauté bii di junatan li mën na sama xoo waaye leneen lu mën a doon itam mu ñu ci jiitu ci wax ak ci jëf nit nag boo boo amee jariñ bu mel noonu nag mu taxaw di la soññ ci liggéey sëñ Tuubaa te loo yëkkati mën a ci kanam kon ñun ñu ngi koy sant ñun tam ñu ngi koy beral cant goo xam ne cant baatin la ak saayir suñu lam bi mënu ko waaye daal comité bi daal xam leen ne la sëñ Touba waxoon ñun loolu rek lañuy ñuy daaneele suñu kàddu sëñ Touba bi muy jógee mbakk baari te Rasulullah sallallahu alayhi wasallam aar ko su ma xaala loxoom si laa tax sax euh, xarar joojee mu ko xam ne ko demal ci liggéey bi dara du la lor ñun loolu la ñuy wax suñ bopp di ko wax képp koo xam ne jóg nga di liggéeyal sëñ Touba mooy wa man takun fi rasulillahi xidmatuhu musaahiba sidqi wal ixlaasi wal xasani falaa yaxaafu wala yarjur wala zamanan isil wiqayata tuxnihi anil kinani loolu sëñ Tuubaa da ci wax ne képp ku jóg di ma liggéeyal dinaa la dëpp kaaraange goo xamante ne bii dara mënu ko bëtt ba si ci yow kon bu ñu ragal bu ñu jàq bu ñu tiit nan xam ne kaaraangeeg suñ borom kaaraangeeg sëñ Tuubaa ànd na ak nun kon li ci des ci nun lay dese te kat sëñ Tuubaa dafa wax loo xam ne nii képp ku jóg di ko liggéeyal sa xel war na dal sa yaakaar war na dëgër ndax daf ne waq di hawa i jël si na daamoo fii xidmat yi wa hablahum maaraamoo loolu nag dafa ëmb lépp lu nit di bëgg ci kaw suuf ndax da nga bëgg ko la jëñal sa lor wala da nga bëgg ñoo di sa xememteef lu mu ci man a doon nag daf ne suñ boroom yow mi am kattan maa ngi lay ñaan nga faj aajooy képp koo xam ne sax na ci sama liggéey waaye yemu ca wax bi loxu maaraamoo nga may leen lépp lu ñuy sàkku Euh, lii daal mooy li nga xam ne euh, ñoo ngi ko waa Hizbut Tarqiyyah indi na ko muy biir réew mi di bitim réew de ay kaddu yu gàtt waaye di addiyee joo xam ne ju ñu xeeb la wuy si ci wooteeb Sëñ Muntaxa bi kon daal ñoo ngi wàcc kaddu yi di sant Sëñ Tuubaa bu baax ci fekke gum ñu ko fekkeloo ak man loo gun ko man loo ak nangum def ci suñu xol ba murid yëpp ñu ngi jëf ñu ngi wuy si sax ñu ngi ciy wuy si wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu barke borom Touba baynahuma yakunu ya rabb as-sama wajjih qulubana ma'al jawarih bil birri wat taqwa bi jahi nasihi wa salliyan asra salatin nafi'a anna wa ba'an min jaradi mani'a alayhi wal ali bi afdali salam wa sahbihi wa maskani ya salam وزك نفسي وزدني علما يكشف في الدارين عني هما وطهرا قلبي وزدني حياة وأحيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كسحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي mbokk yi sëriñ Abdou Lahad mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mu ne ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp. turu kuréelu junnatun liman nasamahu ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha mu ne mu boole ñetti kuréel yoo xam ne moo di commune bu Touba ak Isbu Tarxiya ak Touba ca kanam nee nañu teewal fi Serigne Abibu moom Cheikh Mouhamadul Fadal mi nga xam ne moo jiite Touba ca kanam sëriñ Abdou Lahad mi jiite maire bi mi ngi maire bi mi ngi nii teew moom it ak ñi àndal ñëpp. sëriñ Issa moom sëriñ Moustapha Bassirou ak sëriñ Khadim Sam ak sëriñ Babacar Mbacke ñu ngi nii toog ak ñeen ko àndal ñëpp. ñu ànd ak sëriñ Youssou Diop. mi nga xam ne mooy jëwriñu Hizbut Tarqiyyah. te kàddu mbooloo mi it moo ko yore. nit nag daa mënta wax ci boppam. nee na nit nag daa mun mënta wax ci boppam. moo tax ñu ko ci wóotu. moo tax ñu di ko wóotu ci kaddu yi. waaye kaddu junnatun moom sëñ Youssou moo ko yor. waaye kàddu kuréel bii di junnatun moom sëñ Youssou moo ko yor. kon nag ci turu kuréel bi. sëñ Youssou ñu ngi lay nuyu. sëñ Youssou ñu ngi lay nuyu. yaa mbokki taalibe yi nga àndal yëpp. yaa mbokki taalibe yi nga àndal yëpp. di leen sant. di leen sant. di leen gërëm. di leen gërëm. ci taxawaay bii taxawaay bii ngeen lu mel nii rek ngeen man tax nga ngeen mas di taxawe lu mel nii rek ngeen mas di taxawe ci yoon bi ci yoon bi ak ci ndigalul sëriñ bi ak ci ndigalul sëriñ bi yéen ni leen sëriñ bi tudde yéen ni leen sëriñ bi tudde soldaaru yoon wi muy soldaaru yoon wi loolu da ngeen koo matal sëkk loolu da ngeen koo matale sëkk lépp nag day dellu ci pàgguteefu sëriñ Touba nee na lépp nag day dolli ci pàgguteefu sëriñ bi ndax sëriñ bi ndax sëriñ bi li mu mënta ñàkk lépp t ak ak fàggu na ko nee na kenn du ko defal lenn kenn du ko ci féete fenn lépp boroomam féete na ko fa delloowaat na it lépp boroomam boroom it tànnal na ko lu ne la ca gën adduna ak alaxira ton tànn googu nga xam ne moom la ko boroomam tànnal la gën ci lépp nag mooy ñun ñii ñëpp rek ndax dafa wax ne keroog ba sun borom waxee ne alastu bi ràbbikum ba mu bindee ruu yëpp ba teg leen da leen laaj kan mooy seen borom ndax du maay seen borom nee na sëriñ bi nee na ruuxu sallallahu alayhi wa moo njëkk a wuyu na ko axa kay yaay sunu borom. sëriñ bi nee na maa ca topp nee na ba loola amee sun boram dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko tànnal saw xeet nee na ca bis boobee ca la yonent bi tànn aw xeetam ba mu tànnee ba nopp sëriñ bi nee na ñu ne ma yow Ahmadou jógal tànn sa waa ma bàyyi fa lafa fa bi bàyyi dugg ci la biir la yonent bi tànn tànn ci sama waa ku ngeen fi gis ak njàmbaar andiwu ko ci yoon wi ku ñëwut ak yaafus bàyyiwu ko fa teewu ko ñëw dañ ko tànnaalewul rek kon alhamdulillahi rabbil alamin bi mu tànnee ca tànnaale ñu waaye ci biir tànn gi lu ne am na ñu ko fa féete isbu tarxiya nag fi nu féete ci yoon wi doyoon na sëkk ñaari mbër képp muy jàng xasida ak joxe aw ñam nee na loola képp day bu ngeen ci yemoon doy na sëkk ab liggéey ak jaamu yàlla doy na sëkkit ci liggéeyal sëñ Tuubaa ndax xasida yi borom daa wax ne nit fu mu nekkut la ko fa nekkal moo ko fa wuutu te man fu ma newut xaside yii ñoo ma fa nekkal loolu sëñ Tuubaa waxoon kon ku ci yëngu yaa nga nekk ca la nekkal sëriñ bi ñam itam daa waxoon ne jaamu yàlla yi li ñuy rëy rëy li ñuy baax baax joxe moom a ci gënal te joxe yëpp nag joxe ñam moom a ci gënal kon loolu doy na sëkk mu mel na nag ci ak pàgguteefam lu ne su waxtu wa jotee da koy génne ñu ne lii fan la nekkoon ba mu santaanee jumaa ji ñu gis carrière ndok gis suufus ndaamaatu sëriñ Omar Mbacke Gelawngal moog way juram ñoo bokk wenn way jur daa jóge fii Touba fekk nag sëñ Touba da dëkk loo woon Touba mu dem siyaare ji njariñ bi muy waxtaan sëriñ bi sëriñ bi di ko laaj liggéeyu jumaa joojee ma santaane fan la toll mu ne ko gis nañ xeer ya ca ndokk gis nañ it suuf sa fa jege dëkk ba ñu ko wax ndaamaatu sëñ bi ne ko ndax xamoon nañ ne am na fa sëñ Omar nag ku yàlla dimbale woon la ci wax ak sëñ bi mu ne ko jëkk ba nga ko soxlaa guddee mu ne ko booba day mbàkke xamuñu woon na am na fa mu ne ko ndax suuf sax xamoon ngeen ne am na fa mu ne ko jëkk ba nga ko soxlaa guddee mu ne ko waaw mu ne ko booba day mbàkke xamuñu woon na am na fa mu ne ko lépp nag noonu la mel lu ngeen fa gisagut ak génn ma jotagut ba génneeguma ko waaye faggu naa lépp teg ko fi lu génnam jot ma génne ko rek lépp na ana lii fam nekkoon loolu nag yu yaatu yu bari la kon alhamdulilahi rabil alamin sëñ Yuusu noo ngi leen di sant ci taxawaay bi ak pësteef bi ak yitte ji ndax liggéey bii ñu sëriñ bi boole day gis nañ ci seen taxawaay gis ci seen pësteef gis ci seenu njàmbaar nga xam ne bu ngeen cee yemoon képp doyoon na te man ngeen cee yóbbaale isbu tarxiya gépp waaye lii ngeen defaat nag dolli ko ci dajale lim bu toll bii ngeen dajale cent tonnes ceeb dolli ci fukki million andi ko ci liggéey bi loolu day kawe na lool Seex Muhammadul Muntaxa bég na ci doonte moom ku ne xam na seen digg ak moom ci lu yàgg ba nëgëni waaye nag Cheikh Mouhamadoul Mountakha daa am taw feex ci sëñ Touba daa amut ab gis ci mbirum sëriñ bi am na foo xam ne ba leen fay gis kenn gisu leen fa woon ba ngeen agsi fii te fa ngeen di yem li fekk lislaam mi ngi dox yoon wi di dox ngeen di wéy di dox ndax mbirum sëñ bi moom du taxaw sëriñ bi daa waxoon ne alxuraan ak lislaam ñooma fi bàyyi maa leen fi bàyyi fu ñu yem fa yem fu ma yem fala la ni yem allahu akbar loolu leer naññi la kon daal li feeg lislaam mi ngi dox mbirum sëriñ bi dox ndax sëñ bee koy doxal fu mu mu yem fa fu sëñ bi yem mu yem fa foofee fa muy yem nag kon kon yàlla rekk ko xam ak sëriñ bi kon liggéey bii buy wéy la kon isbu tarxiya li weesu ci ay jëf ci yoon wi ku leen ko doon limal fi ngay fanaan ndax seen jàmbaar ja ngeen ko àndaloon di señaatu yàlla na ko sun borom dooli yërmande taqale ko nag ak sëriñ Touba foofee mu ne ndax moom képp la bëggoon di ko liggéeyal waaye nii ngeen sofoo àndandoo ni ko sëñ Ilimaan doon waxe léegi na mel na ka annahum bunyaanun marsuus nga xam ne day mel ne rek birig yoo xam ne maçon ba da koo jekku di ko tegale rek ba war jiitu jiitu ba ca war a topp topp ca loolu lu yéeme yéeme li ci mbirum sëriñ bi ndax dafa mel ne léppi sëñ Tuubaa ci sëñ Touba nga koy gisee boo noppee ba génn sëñ bi dootoo gis lu mel noona ak sëñ Yuusu ci liggéey bii ñu sëñ bi boole mu ne gis na ci ñoom ñaar yitte ak Pastef boo xam ne kat bu ñu sëñ bi boole wutoon ñu ànd lii donte rafet naa ci ñoom njor du tax ma defe ne àgg nañ foofu ci Pastef ak yitte ñoom ñaar ñii keroog bi li ñu sëñ boole jataay bu njëkk ba ba ci jataay bii ñu toog waxtu wu ne Pastef itte ju kawe ak njàmbaar bali sëriñ bi bëgg mën a am ni ko sëñ bi bëggee ci loolu dong la ñuy xëy kenn ku nekk ci ñoom joxe na boppam joxe alalam joxe waxtoom loolu daal mëneesu ko weesu doonte nag loolu moomuñu ko ndax jaay nañ ko sëñ Tuubaa ba mu jar te nag lu waay jaay ba noppi jot ci njëgg saxaaba ya doon jaayante di joxe seen bakkan sax yaakaar ak njëg waaye ñun moom dañoo tàmbalee jot njëkk a jot ci njëg gi soog a jaayante ñoo ngi jëfandiku ci njëg gi ci àdduna te demaguñ àllaaxira ka tax ñu jaayante sëriñ bi daa mas a wax ne fere yi day dañoo jàpp ne li fi nekk di xiwal dama leen koo faye ci liñ doon liggéey te déedéet demewut noon de ndax àdduna du këruk fay kërug not la waaye notti ba ma ngi ca kanam barke ne wax na lii fi nekk di xiiwal ngeen di ko gis ananum deme ndax man kat mbooleem li ma doon defal sans borom mosuma xëy ngir àdduna mosuma gont ngir àdduna sama pay ak sans borom it xajut àdduna ba di fi wàcc kon lépp nga ëllëg waaye teraanga jii ngeen gis ananum deme taqoo gii nga xam ne moom laa taqoo ak ngërëmul yàlla moo tax ku ma sob sama borom teral la teraanga jooju dong la donga yi gis ba jàpp ko ne fayu nañ jërëjëf. waaw sañu maa wax waaye sëñ si sëñ si te it lii daal nit ñi ak boo xam a yombaat ci tax bu diis mooy àdduna gàllankoor ndax faw nit ki day mucc ci gàllankoor yi am liberté ndax gàllankoor yi weesuwut fa nafsu wal xalqu wa seytaanu xat faraxoo min xas di durriya li dunya bi taxat salaama da ngay mucc ci mboolem noon yi juróomi noon don la ñeenti noonu yi du dëgg ñeenti noonu yi yooyu boo ci muccee da ngay liggéeyal sëñ Tuubaa loo amit sëñ Tuubaa di nga ko xool dina yomb nga jox ko moom ndinkaan boo ko bëggee jaawaleeg loo moom rek ak jubadi dugg na joxe gi sëñ Mbàkke yu fay dama dégg mu wax démb loo xam ne ndeysaan dafa dafa dafa ñeewante sëñ Muntaxa xam jikkoy sëñ Muntaxa ne ko dafa mel ni Mbàkke dongo yi dañoo bëgg nga di ñu sas di ñu di ñu liggéeyloo Euh, ndax ndax ndax ñeewante gi nga am ci ñun dañoo bëgg mu jëm ci di ñu ñaanal ak mu jëm ci euh, euh, di di ñu fegal lépp rek waaye bu mu jëm ci suñuy poos xam nga loolu waxi pas-pas la waaye moom am na leneen loo xam ne war naa dal xelam moom sëñ Mbàkke yu xam lan moo war a gën a dal xelam la sëñ Saaliwu waxoon loolu ci bagage yi suñu borom yi la bokk mooy joxe bi na jiitu laaj kon nun ñëpp dañ la xasaayu bu dara léegi man de digal naa ko bokk Hizbut Tarqiyyah lépp luy jëfandiku ci loo moom te yaakaar ne yaa moom na mel ni looy yalwaan sëñ Tuubaa mais loo yor xamal ne alal jàmbur nga yor nga xam ne looloy atteb wala zina yootoona ma ataba qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun moomuñu ci dara jërëjëf wa jannatan li saalikin muridi wa jannatan